ba léegi ci erreur yoo xamante ni ñu bari dañ koy def ci jumaa yi bu ñëwee di julli si yegg si fekk imaam baa ngi xutba ñëw na en retard erreur bi ñu bari dañ koy def rawatina nag ci weeru koor bu koor gi surtout début koor gi nga xam ne nit ñi dañoo gëj a gisee nammante da gis nit ki day dugg imaam ngi xutba day dugg di nuyu gars waa saa waay na nga def waa waa saa waay na nga def waa yàlla na yàlla nangul ñu waay wala boog nuyu nit ki waaye mabruk ramadan waaye ramadan mubarak kee tamit barakallahu fiik jërëjëf waay yàlla yàlla may ñu nekk foofu di wax imaam a ngi xutba ñoom ñaar ñu ngi waxtaan wala mu ngi koy nuyu naan ka na def jàll njaay kii déedéet lii dafa xaraam lii dafa xaraam imaam buy xutba soo ñëwee ñëw nga imaam maa ngi xutba ñëwal nga julli ñaari ràkka yoo xamante ni yu leger la nga respecté rukon beeg sujjóot beeg yooyu yëpp waaye nag na légère na gàtt nga daal di julli ñëw daal di toog bul fa nekk di waxtaan bul fa nekk di an déedéet ndax loolu mën na yàq sa juma waaye ñu bari nag dañuy dugg wasaay na nga def ça va alhamdulilah macha allah naka mu ça va alhamdulilah naka waa kër ga Diallo Ndiaye Fall Diop lii mais yal na yàlla dégloo ñu diine ñu bari nag xamuñu ko nañ leen xamal loolu moom mooy objectif bi yal na yàlla dégloo ñu diine ku yàlla na mu ci yow nag yiw da lay dégloo diine kon nañ ci bàyyi xel incha allah.